salaamaaleykum wa rahmatullah gars yi ñu ngi leen di ziara lu bari tey nag dama amoon benn laaj laaj bi nag incha allah rabi képp ko tontu am nga fi mille francs crédit waaw eh, ci wolof dañuy faral di wax na jënd jaan ci pax jënd jaan ci pax nag benn waxin la waaw li mu tegtale mooy jënd loo xam ni gisoo ko waaw wala xamoo nu mel am na nu mu lu muy tolloo ci anglais am na nu ko anglais yi waxee képp koo xam te ni tontu nga ko ci commentaire yi incha allah rabi am nga fi 1000 francs crédit ñu ngi leen di xaar. ok ci commentaire yi rek